jëf ya juróom bi festus teesee ci diwaanam mu teg ci ñetti fan dem yerusalem noonu saraxalekat yu mag ya ak njiitu yawut ya kalaame pool ci moom ñuy sàkku ndimbal ci moom di ko ñaan bu wér mu yónnee pool yerusalem fekk lal nañu fiiru rey ko ca yoon wa waaye festus tontu leen ne nu ngi wottu pool ca sesaare te dinaa fa dem fii ak ay fan yu néew mu ne leen ñi am maanaa ci yéen nag na ngeen ànd ak man layoo ji ak nit ka bu dee tooj na noonu fesis am fa ñoom juróom ñett ba fukki fan ba noppi dem sesaare ca ëllëg sa mu toog ca attekaay ba joxe ndigal ñu indi pool bi mu ñëwee nag yawut yi jóge yerusalem wóor ko di ko jiiñ tooñ yu bari te réy te mënuñu leen a firndeel noonu pool làyyi ne tooñu ma yoonu yawut ya tooñu ma kër yàlla ga tooñu ma buur ba sesaar ci kaw loolu festus mi bëgg lu neex yawut ya tontu pool ne ndax bëgguloo dem yerusalem nga layoo fa ci mbir yi ci sama kanam waaye pol ne ko maa ngi nii taxaw ci kanam attukaayu buur sesaar te fii lañu ma war a àttee te yow ci sa bopp xam nga bu baax ne tooñu ma yawut yi su ma tooñoon mbaa ma def lu bon lu jar kon duma tinu ngir bañ a dee waaye bu li ñu may jiiñ taxawul kenn sañu ma leen a jébbal dénk naa sama mbir Sesaar bi mu waxee loolu Festus gisee ak ñi ko wër mu tontu ko dénk nga sa mbir Sesaar kon ci moom ngay dem ba ñu ca tegee ay fan buur Agrippa ak Bérénis ñëw Sesaare ngir nuyu ci Festus bi seen gan di ruus nag festus diis buur ba mbirum pool ne ko feliks batale ak kenn ku ñu tëj te bi ma nekkee yerusalem saraxalekat yu mag yi ak njiitu yewut ya kalaame nañu ko ci man ñaan ma ma daan ko waaye ma tontu leen ne jébbal nit fekk jàkkaarloowul ak ñi koy jiiñ ba mën a layil boppam ci li ñu koy jiiñ loolu dëppoowul ak aaday nguuru rom bi ñu àndee ak man ba fii nag randaluma mbir mi waaye ci ëllëg sa sax toog naa ci attekaay ba joxe ndigal ñu indi nit kooku ñi koy kalaame nag bi ñu taxawee diiñu ñu ko benn ñaawteef ci yi ma yaakaaroon waaye ñuy werante rekk ak moom ci seen yoon ak ci mbirum ku tudd yéesu mi dee te pool sax ci ne mi ngi dund ginnaaw lijjanti mbir moomu jafe woon na ma lool nag ma laaj ko ndax bëgg nga dem Yerusalem layoo ji fa ci mbir yooyu waaye Pool ñaan ñu fomm mbiram ba kere buur bu tedd ba di ko àtte noonu santaane naa ñu aj ko ba keroog ma ko yónnee Sesaar baba nag Agrippa ne Festus man sax bëgg naa dégg nit kooku Festus tontu ko bu ëllëgee dinga ko dégg ca ëllëg sa nag agripa ak berenis ñëw bu xumb ñu dugg ca néegu atte ba ànd ak kilifaay xare ba ak ñi am ca dëkk ba noonu festus joxe ndigal ñu indi pool bi mu ñëwee festus ne buur agripa ak yéen ñépp ñi fi teew tey nit kaa ngi nii mbiram moo tax mbooloom yawut yépp mu ci yerusalem muy fii wër ma di yuuxu ne nit ki waratula dund waaye gis naa ne deful dara lu jarde moo na gannaaw moom ci boppam dénk na boppam buur bu tedd ba fas naa yéene yónnee ko ko fekk awma dara lu wóor ci mbiram lu ma mën a bind sang bi moo tax ma indi ko ci seen kanam rawatina ci sa kanam buur agripa ngir sunu jataay may ma lu ma bind ndaxte yaakaar naa ne yónnee ku nu tëj te bañ boole lu ko waral àndul ak xel